man maa ngi tudd Fatou Sow maa ngi dëkk Kër masaar mhm. ah inondation bi moom metti na torop boroom kër yëpp génn nañ jaaxle nañ sonn nañ xamuñu nu ñuy def ak suñuy njaboot sonn nañ torop ku ñu jàppale nax ñu jël maire Kër Massar bi dañoo bëgg mu gën ñoo jàppale bu baax a baax suñuy doom sonn nañ fooweetuñu ñu ngi siburu faj nañ ba sonn. maire bi mi ngi def na mais suñu sañoon mu gën a yokk loxoom bu baax a baax a baax parce que. amuñu fu ñu ko defee dëgg fa neex yàlla nit moom da ngay wax dëgg amuñu fu ñu ko defee kër yi fees na du si fekk si na leen ndox mi ñëpp jaxasoo amuñu fenn fu ñu ko defee. mu gën a yokk nax suñu xale yi feebar. ak période feebar bii ñu nekk mu gën ñoo jaaxal xamuñu fu ñu jëm suñu bopp yi tëju ne borom kër yi sonn nañ torop maire bi daal bëgg nañ mu jàppale ñu bu baax a baax a baax bu ñu jàppalee ñu jël meeru Kër Massar bii nañu jàppale waaye da gees waa Daaru Rahman waa Daaru Rahman sonn nañ torop kër gi ndox mi sonal na leen borom kër yi sonn nañ amuñu fu ñu jëm nañu dimbali dimbali borom kër yi indoon yi loolu daal lañ bëgg